booy jàpp ni sax dafa am noo koy jàppe waaye di ko pëñe di ko pes di ko mbaj di ko gëdd loolu àq ak yelleefu doomu aadama ñi ci liggéey war nañ ci aj lii nag tàmbali woon la pour doxoon ci ak askanu Ndakaaru lu ñu façon yéene def tey suba ak gannaaw suba ngir meeting d'investiture bi nga xam ne moom la ñu dëgmal bëgg def le dimanche mais bi fi Abdoulaye Wade nekkee sax am na loo xam ne dafa nekkoon ñagas-ñagas ci réew mi dañ ñu woon jaratul sax autorisation information la rek mooy ay activité comme lu mel ni meeting wala ay caravane mais ñun meetinguñu caravane nañu dañuy dox pour nemmeeku askan wi pour euh, jonkante ak askan wi mais loolu lu ci ay ñëpp ngi dox waaye na ñëpp dox waaye Barthélemy Dias wala waa kër Barthélemy Dias du ñu dox loolu duñu ko nangu gis nañu ay samba boy xam ñi ngi dox di dem ak dëkk te kenn waxu leen dara kon bu ñu doxee bu ñu mënul encadrer nañ ñu bàyyi suñu dox ndax fa ñuy dox ñeme nañ ko xam nañ ko askan wi la ñuy fekki askan wi lañuy ñuy nemmantikoo askan wi la ñuy waxal lii dama bëgg mu dakk bis na ko tey plus jamais ça plus jamais mënatuñu nangu lii trop c'est trop te lu ëpp tuuru loolu la wala fi di wax jot nañu ci wewu béy xibaar boo xam ñi ngi naan bàyyi nañu Barthélemy Dias mais ñun ñu ko gëm fekk gisuñu ko te buñ ko gisee aussi loolu mënul faj mer gi nga xam ne moo nekk ci ñun waruñu ko woon téye sax ba di ko bàyyi bu ñu toogoon trois minutes de plus fekk Barthélemy Dias ci biir këram mais fan la ñu nekk ci ban réew la ñu nekk trop c'est trop plus jamais ça en tout cas ci turu yeewi askan wi ñu ngi dénoncer li nga xam ne xew na tey et dootuñu nangu aussi lu mel ñu koy dundaat fii ci Ndakaaru ak feneen fu dul Ndakaaru léegi ñu ngi bàyyi kàddu gi suñu naataangoo Abbas Fall coalition yeewi askan wi aussi mu ñëw yéen ci kàllaamay nasaraan ci li nga xam ni moom la ñu dund tey te ñun ñëpp ñu fekk ko ñun ñëpp ñu teew ko ñaaw na rafetul dëppawul ak Sénégal ak taxawaay bi nga xam ne Sénégal moom la war a taxaw jërëjëf. merci monsieur le maire et par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition Yewwi Askan Wi de Dakar je vais essayer en quelques mots de transcrire le message qu'il vient de délivrer en français. Vous l'avez constaté tous, aujourd'hui, le maire Barthélémy Diaz, qui est maire d'une commune est par ailleurs candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar avait décidé de faire ce qu'on appelle un dox mbok avec tous les membres de la coalition au niveau départemental. Vous, journalistes qui étiez sur le terrain ce matin, avez constaté la brutalité et la célérité avec laquelle le cortège du maire Barthélémy Diaz a été arrêté. Et lui-même, vous l'avez vu sur les images, a été victime de violences policières. Parce que la brutalité avec laquelle il a été arrêté est inadmissible. De quoi s'agissait-il Tout simplement d'une campagne qui va permettre au maire Barthélémy Diaz et aux 19 candidats de la commune de Dakar d'informer les Dakarois du meeting qui doit se tenir le 21 novembre 2021 au terrain de Khar Yalla. Et ce qui est grave, c'est que M. Barthélémy Diaz a été arrêté dans sa commune, non loin de chez lui. Nous trouvons cela inadmissible. Dans quel pays sommes-nous pour permettre à certains candidats de descendre dans la rue de faire son dox son dox mbokk d'aller voir les Dakarois et et et, de, de de ça à un autre candidat y a-t-il dans ce pays une justice à deux vitesses y a-t-il des citoyens qui ont des chèques à blanc qui peuvent faire ce qu'ils veulent alors que d'autres sont toujours contraints à à à, à certaines règles nous ne pouvons plus continuer à accepter cet état de fait. Nous demandons à la police de rester plus professionnelle. On ne peut pas arrêter comme ça un candidat et de surcroît un maire d'une commune comme un vulgaire malfrat. Cela est inadmissible. Et tout à l'heure aussi, la police s'est permise de charger même la commune de mermoz sacré que parce que tout simplement, les jeunes était descendu pour demander la libération du maire Barthélémy Diaz. Nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Et nous demandons aux autorités de ce pays d'être beaucoup plus sérieuses. Nous demandons aux partenaires sociaux de parler à Macky Sall et à son régime. On ne peut pas interdire à un citoyen, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, de faire valoir un droit garanti par la Constitution. Demain, nous tenons à le dire, nous allons continuer notre Soit on l'accepte pour tout le monde, soit on l'interdit à tout le monde. C'est le message que nous, nous voulions faire passer. Il n'est pas accepté et il acceptable que demain, qu'on ne la même chose. La police n'a qu'à nous comme il l'a fait pour d'autres candidats que vous avez vus, je, euh, il y a 48 heures, avec même une escorte policière. Et pourquoi on nous à nous Parce que nous savons pourquoi on ne veut pas qu'on s'approche des Sénégalais. Parce que ces élections, nous les avons déjà gagnées. Nous tenons à le dire encore une fois et nous le répétons. Demain encore, nous serons, nous tous, au niveau de la coordination départementale de Yewi Askanui, nous serons dans la rue uniquement pour distribuer nos flyers, parler aux Dakarois de ce que nous, nous comptons faire de Dakar, Inch'Allah, si nous gagnons, et nous allons gagner le 23 janvier Monsieur le maire, je pense que c'est bon. Oui. On vient de nous dire qu'il a été libéré et qu'il est chez Nous attendons de voir. De toute façon, monsieur le maire n'a pas... Non, nous ne confirmons absolument rien parce que monsieur le maire, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore... Voilà. Donc nous attendons lui-même qu'il appelle pour nous dire effectivement qu'il a été libéré. Mais même s'il était libéré, il ne devait même pas être arrêté pour être libéré. Il ne devait même pas être arrêté pour être libéré. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et demain, vous allez voir quelqu'un d'autre qui est insignifiant dans ce pays mener tranquillement son doxantu sans pour autant être inquiété. C'est ça que nous déplorons, le deux poids, deux mesures. Non, on ne on nous a rien dit jusqu'au moment où nous vous parlons. S'il a été libéré, ça veut dire qu'il n'y avait aucun motif valable pour l'arrêter. Il a été arrêté pour deux heures de temps. Et pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun motif valable qui a prévalu à son arrestation. Ce que nous continuons à à à à, à dénoncer. Oui, mais ça, il doit le dire aussi. Monsieur le préfet a la même promptitude, peut-être pour sortir un communiqué quand il s'agit de l'opposition. Mais est-ce qu'il a sorti le même communiqué quand un autre candidat à la ville de Dakar a fait son doxantu Est-ce qu'il l'a fait C'est ça que nous déplorons. Nous, sommes républicains, nous sommes respectueux des lois et règlements de ce pays. Mais pourvu que ces lois et règlements soient respectés par tout le monde. Donc nous demandons à Monsieur le Préfet, la prochaine fois,

Mais nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours fait. Monsieur le maire Cheikh Gueye l'a rappelé tout à l'heure, les Sénégalais se sont toujours battus pour le respect des lois et règlements de ce pays. Les Sénégalais se sont toujours battus pour la démocratie. Madame Aïda Niang, ici présente, en 2011, fait partie de ceux qui se sont battus pour que la démocratie prévale au Sénégal, pour que Macky Sall même soit président de la République. Monsieur le maire Cheikh Gueye ici l'a fait. Les jeunes Bassirou Sam, les autres dames qui sont là, se sont tous battus pour que la démocratie prévale. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que Macky Sall vienne et nous amène 10 ans ou 50 ans en arrière. Nous n'allons pas l'accepter et nous allons continuer à nous battre pour que les acquis démocratiques puissent être préservés. Ce n'est pas à Macky ce n'est pas à Macky Sall de nous empêcher. Et il ne pourra jamais nous empêcher de nous battre, quelle que soit par ailleurs la force qu'il prétend, je dis bien, qu'il prétend détenir. Il a oublié que la force appartient au peuple, mais pas à lui. Il pense avoir le pouvoir entre lui, la force entre ses mains, mais il se trompe lourdement. Et il verra, il verra, il verra bientôt que nous n'accepterons pas que cela puisse continuer. pour, pour proposer une charte de non-violence. manifestement à raison, parce que tous les deux camps se ce que vous avez écho de cette déclaration, de cette charte de, non-violence Et quelle sera la, la posture de Yévi Askani par rapport à tout ça Parce qu'on va vers des élections manifestement qui seront amplement discutées. Et eux, ils proposent une, une charte de non-violence. Est-ce vous êtes prêt à signer cette que Bon, vous êtes, vous êtes aujourd'hui les représentants de Yewwi Askan. Est-ce que vous êtes prêts à signer cette charte de non-violence? Mais cette charte, nous l'avons signée depuis longtemps. Nous avons dit, je pense que vous l'avez entendu, les leaders ont dit que la coalition Yewwi Askan Wi est promotrice de la paix dans ce pays. Regardez bien ce qui se passe, vous les journalistes. Vous savez très bien que c'est toujours l'opposition qui est attaquée. L'opposition ne s'est jamais levée une seule fois pour attaquer le pouvoir. À chaque fois qu'on veuille euh, euh, faire prévaloir un droit démocratique qui est le droit à la marche, c'est en ce moment-là que euh, euh, euh, l'État devient violent avec nous. Nous sommes pour la paix. Et c'est parce que nous sommes pour la paix que nous avons demandé à ce que les partenaires sociaux, les chefs religieux parlent au président Macky Sall pour qu'il arrête de violenter l'opposition. Quand quelqu'un dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, je pense que c'est cette même personne-là qui est le promoteur de la violence. Parce qu'on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression et qu'elle va accepter, elle, l'opposition, à être réduite à sa plus simple expression. Elle sera obligée de réagir. Donc les germes de la violence politique dans ce pays sont du fait d'un d'une seule personne, c'est Macky Et nous sommes prêts à signer toute forme de charte qui va nous permettre des élections paisibles transparente et que le meilleur puisse gagner. Nous sommes preneurs et nous allons tout faire pour promouvoir cette paix au Sénégal. Nous allons tout faire pour le faire. Maintenant, nous allons laisser la parole aux jeunesses de la coalition Yewwi Askan Wi, en l'occurrence euh, euh monsieur Bassirou Samb qui va s'adresser donc à la à la à la presse. Merci. merci beaucoup aux camarades Abbas Fall et au maire Cheikh wax ji du bari le message convalence va directement à Macky Sall parce que il faudrait que Macky mu xam ni réew mi moomu ko est-ce que jàppoon nañu ni en deux mille vingt et un et je parle sous le contrôle d'une comme Aïda bi nit ñi di génn ci mbedd yi di xeex en deux mille onze deux mille douze ba ay nit di ci ñàkk seen bakkan. jàpp ñoo ni en deux mille vingt et un daañu toogaat fii ci taabal bi di porté waat ces mêmes combats bi leader yi di mobiliser wu di dem place de l'obélisque moom ma nga doon làqatu këram saa bu santiraan ni sedd na ca la daan ñëw mais musuta tàng ba ñu gis Macky Sall ak waa këram il faut mu xam ne ña àndoon ak moom démb doon xeex ngir démocratie tey ñooñu ñoo taxaw continuer ngir laa démocratie sénégalaise mu taxaw est-ce que jàpp ngeen ni dans une république normale mën nañu tere benn citoyen mu jël flyers dem seeti sénégalais yi wax ak ñoom et je rappelle que ce programme dox mbokku démarré wul tey il y a de mois ñi ngi dem di waxtaan ak sénégalais Dakar waay ànd ak sunu candidat Barthélémy Diaz lan moo waral tey jii ñu xëy ni Barthélémy Diaz dootul dox Dakar lan moo war a tax tey ñu ne Barthélémy Diaz amatul possibilité communique avec les wa ñuy wax Macky Sall ak nguuram. s'il refuse le droit à Barthélémy Diaz mu communiquer avec Dakarois yi nu nous de telle sorte que le candidat de la mouvance présidentielle tam du ko mën a defati ci Ndakaaru parce que gënuñu ñu fi dëkk ëpp ëppale ñu Dakar Sénégal benn Sénégal la Dakar benn dakaar la dañuy mën bàyyi Barthélémy ak coalition bi ñu dox wala ñu nit ñu taxaw ba seen candidat dootul dox te loolu pare nañ lu mu leen jaral rek daan ñu ko jaral et je lance cet appel à la jeunesse dakaroise plus particulièrement à celle de Yewwi Askan Wi nañu jóg taxaw am fulla ak fayda Barthélemy Dias ba mu ci toll mustaxaar kenn ci komba donc tey kenn ku si ne si ñun war nga mën a jóg xeex ne serait-ce pour Barth mais xeex pour la démocratie sénégalaise programme dox mbokk bi tey arrêté nañ ko jàpp ni du ñu wax ak Dakar waaye suba daañu àndaat ak candidat Barthélemy dem dans les communes indiquées vendredi daañu ko def et dimanche dañuy woo toute la jeunesse dakaroise à Grand Yoff pour ñu def meeting bi préfet boobu toog Dakar mu xam ni lii mu def tey démb dañ doon xaar mu def ko bu jàppee ni mën nañu tere génn dafay nax boppam des commissaires gelé nekk seen ay commissariat di def lu leen neex jàpp Barthélemy qui est avant tout un élu un maire duggal ko ci violon jàpp ni mën nañ ko toroxal dañuy nax seen bopp Barth du sàcckat defu fi lu ñuy bañ lu dul dox ngir Dakar ñu leen di xamal ni foofu ñu toog nous avions connu un commissaire qui s'appelait Arona Sy tey déggatuñu ko et que demain ils sont appeles à travailler avec le pouvoir qui sera là un ordre injuste benn commissaire te amul droit di ko obéir force de l'ordre yi ce sont nos mais pour ñu doon suñuy frère foog ñu xam ko seen xeer yi ñu yor di ko sànni seen grenade lacrymogène yi ñuy sànni dañu ko war a arrêter ils sont payés pour gérer notre sécurité mais ils ne sont pas payés pour fu ñu toll képp ko bokk ci opposition bi ñu sànni la xeer dóor la ay lacrymogène sunu ay frère lañ ci quartier yi la ñu dëkk ak ñoom ñu di jaamarloo ak ñoom ñu xam ne ñi leen koy yebal ña nga toog ci seeni kër amuñu jeunesse bu am fit bi amuñu femme bu am fit bi ñu nit ñu am fit ñi wàcc terrain bi donc bu ñu nangu mukk ñu leen di pousser sur le peuple de Dakar et ce peuple restera debout pour protéger Barthélemy parce que nous l'avons choisi comme notre candidat et ce candidat jusqu'à l'hôtel de ville de Dakar parce qu'ils savent que ce combat est perdu d'avance Barth si les élections se tenaient demain dina gagner Dakar et on fera de lui le maire de Dakar et Macky Sall ne pourra pas empêcher cela il faut que loolu mu xam ko donc toute la jeunesse se mobilise fu Barth taxaw ñu taxaw ci wetam dox mbokk wax ak Dakar waa yi sunu meeting pour dem ci jàkkaarloog Dakar waay au soir du 23 ñu def Barthélémy Diaz le prochain maire de Dakar loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon nañu ko lancer je vous remercie. après Bassirou Samb ñu jox kàddu gi loo xam ni c'est une dame mais elle est jeune li ñu fi wax yëpp ci approfondissement démocratie malgré son jeune âge contribué na ci mais aussi elle est élue sur la liste de la ville de Dakar. membre la coordination départementale de Yewwi Askan Wi je veux nommer Aïda Nia Aïda vous avez la parole. Euh, merci monsieur le maire maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam yaakaaroon nañ ni ni que heure bii duñu fi fekk et que ñi ngi def tour de Dakar maa ngi leen di rappeler article 10 de la constitution du Sénégal lan la wax dafa ne chacun a le droit d'exprimer de diffuser librement par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et ni à la considération d'autrui. tey ñun li ñu doon wuti mooy dem dox mbokk et je rappelle il y a même pas trois semaines au niveau de plateau parce que Petersen lañ doon dem am na ñuy génnee l'argument selon laquelle dafa am périmètre de sécurité je rappelle que Plateau il y semaine quelques a un candidat sortant boo xam ni def na fa tournée avec ses militants te tournée bi bloqué na circulation bi amoon na attroupement te kenn terewu ko ko et la loi elle doit être pour tous et pour toutes may rappeler ni que tey Barthélémy Diaz et notre candidat et nous avons le droit de le choisir que mënuñu nangu que moom ñu koy bañal dara ñu koy nangul keneen loolu en fait du sax démocratie ñun ñoo ko dul nangu la dernière des choses mooy bi ñu jàpp Barthélemy nous avons des militantes qui ont été frappées qui ont été malmenées kenn ki peut-être sax bëñam damm na ñi ngi xool naka la ñuy dem bu seeti ko hôpital ci lan dox mbokk ci lan distribuer ay flyers yoo xam ni c'est pour renseigner les gens sur le meeting bi ñuy am sa dimanche je dis que c'est anormal La question pour la charte de la non-violence. Je dis que le Yewi a été la première coalition à inspirer et à parler de non-violence. Parce que nous n'avons jamais été violents. Maintenant, Barthes est notre candidat. C'est Dakar qui veut de Barthélemy. C'est Dakar qui demande Barthélemy. C'est la jeunesse de Dakar, les femmes, les adultes qui veulent de Barthélemy comme candidat. Et nous allons être à côté de lui pour qu'au soir du 23 janvier lenn rek la ñuy dégg mooy Yewwi a gagné dans le département de Dakar je rappelle que lors bi Barth di génn bu ngeen gisee ñi ko entouré c'était la plupart des femmes et des jeunes yaakaar naa ne nag doo ay jigéen ne leen nañu dem doxi mbokk pour di wut violence et je le dis et je le répète Nous sommes partisans de la non-violence, mais qu'on ne nous cherche pas. Qu'on ne nous cherche pas dans le sens où Barthélémy Tay, on a le droit d'aller au niveau de, la, de, Petersen. am nañu droit wu dem Médina am nañu droit wu wër tous les 19 communes d'arrondissement parce que d'autres candidats le font même bu dul dans le département de Dakar dans les autres départements des candidats le font te jamais au grand jamais la police ne s'est levée et je dois dire la police elle au service du citoyen Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des citoyens et des citoyennes qui ont le droit d'avoir une ambition. Et je termine par le dire, quand on voit la présence ici des femmes, vous vous rendrez compte que les femmes sont avec Barthélemy, que nous sommes avec lui et que nous n'allons pas laisser que nous soyons maltraités et qu'il soit en réalité l'agneau du sacrifice, parce que c'est notre candidat et tout nous tànn ko parce que nous pensons que Barthélémy maire de la ville de Dakar li ñuy xaar ci en tant que femme li ñuy xaar ci moom en tant que jeune pour les projets qu'il qu'on veut qu'il réalise dina ko mën a def et pour terminer nous invitons toutes les Dakaroises à se mobiliser pour ce dimanche nous les invitons demain après-demain et même peut-être ce soir à sortir ñu ñëw teg seen maire ñu sottantey xalaat parce que duñ ñu empêché tamit même tey buñ ko mënee def dinañ ko def fi ñu war a dem ñu dem ko parce que Dakar kenn moomu ko en conclusion nous invitons les Dakaroises à venir le 23 ci conf ci le ci meeting bi ñu war a def te bu ngeen ñëwee ci meeting bi nag di ngeen gis ni waaye Yewwi on n'est pas pour la violence dañu ne ñu ñëw na ñu ñëw toog na ñu ñëw déglu le programme que nous avons parce que au-delà du discours va t bi ñu bëgg ñu porter on est des hommes et des femmes d'idées Dakar waay am na lu ñu bëgg dégg am na fu ñu bëgg seen maire féete leen fa loolu yëpp vous en aurez la confirmation pour ce dimanche maa ngi leen di gërëm di leen remercier. est-ce que. waaw en fait question bi nga posé mooy géej gi am na ndox dans le sens où en tant que politique en tant que des hommes et des femmes très réfléchis nous ne sommes pas dans la recherche du buzz et de faire du brouhaha comme tu comme vous dites mais nous avons fait une réflexion très poussée sur ce qu'attendent les Dakarois et je pense que même la présence du maire Cheikh Gueye war nañu ci confirmer parce que nous avons des hommes et des femmes d'expérience qui vont nous dire parce que Dakarois yi tamit je pense que aujourd'hui lépp mën nañ ko wax sauf que ñoom nit mën na leen nax kenn du leen nax kenn du leen yóbbu ci benn groupe bi pour ne leen ñëw leen voter pour moi pour moi mais c'est parce que en réalité il y a un programme qui est qui est qui est là donc il y a le maire Barthélémy qui arrive on l'attend oui xam nga lañ ci mën a yokk rek mooy ñun ñëpp ay aji gëm lañu non ne bougez pas Barthélemy va venir au-delà même dox mbokk bi am na beneen bu beneen bu bees bu ñu génn bu ñu nar a génn xam nga beneen bu bees bu ñu nar a génne mooy lan du ngeen ma ko laaj xam nga ban la dama koy bañ a wax ñeneen ñi jël ko xam nga Barthélemy mooy jóg di dem ci askan wi di leen nemmeeku. non ko mu ngi ñëw. xaar leen mu fii la xam nga. ma xam nga Barthélemy jaas ak waa Yewwi ñooy jóg di nemmeeku ji askan wi loolu mooy dox mbokk mais am na beneen bu bees bu ñuy fent xam nga mooy lan bu sa kilifa ñëwee seetsi la wala si sëriñ ñëw seetsi la loolu la ñuy def dañuy dem ziyaare ji sëñ am de léegi daañu wut ay jataay yoo xam ni au lieu que Barthélemy di dem ci nit ñi nit ñi ñooy